yow mi nekk Sénégal wala nga nekk Afrique te bëgg a seetaan galaa bu mag bi war a am le 27 février Fallou Ndiaye organisé ko mu war dox ci diggante Ada Fass Jokkel Laurent Ndiago bu Siteu Bulldozer Caatu Yaraax ak yeneen juróom-ñaari combat yu war a am ca bés ba mën ngaa jënd sa code ak sa Orange Money da ngay def dièse 144 dièse 5 étoile 346 360 étoile 1800 dièse nga daal di bés touche appel daal di dugal nag sa code secret di nga jot benn SMS bu la yónnee sa lay yëgal ni code bi Sénégal dong la yem ak Afrique bu fekkee da nga nekk ci yeneeni réew yu bokkul ci biir Afrique maanaam ci Europe bi ak li ko wër yow carte bancaire rek nga mën a utiliser wala PayPal da ngay def 3w point seen affiche point com nga daal di bës achat ou connexion par carte bancaire nga daal di topp nag tegtal yi ñu lay wan Adama sa xarit baa ngi noonu sa xarit baa ngi noonu Nokiya Nokiya doomu day Adama la <laughs> waaw waaw xeeñ lan la. ndam ak combat yëpp ay xeeñ. ndam bu ngi xeeñ combat bu ngi xeeñ. waaw ndam fan lay xeeñee. ndam yarax. ci kat car ci kàttu ñoom lay daan. xale bi bëri nga ko. non dara. so sama mbër laa xam laa xam sama mbër laa ma dem te ñëw sama mbër laa xam te waxoon naa la ko su bële ku xef doo gis génn bi bii tamit comme d'habitude ah. boole léegi li doon ñaan yàlla defal ñu ko Yaraax doon benn union fait la force lépp benn la. waaw nuyu nañ. maa lay fay bu baax a baax. waaw maa ngi am jàmm bu baax kay. Caatu Yaraax mu jëm ci bis bu rëy digganteem ak Bulldozer nan ngeen waajee ak nan ngeen koy yebee ci bis. waaw xam nga caat moom xale la neex na yàpp ndax ba muy combat day liggéey ba amul combat day liggéey xam nga. waaj na nag bu baax a baax ndax combat bi moom mooy combat bi nga xamante ne ci la ko Sénégal yëpp nga xamee quoi waxtaan nañu moom tam ci koro yëpp na xam ne tey lay soog a bëgg quoi combat bi ñu ko ñaar yàlla may ko ndam incha allah quoi loolu lañ bëgg. adversaire bi nee na caatu dafa bëri wax moom laaju ko fenn caatu di wër wax ni moom moo ko laaj ndax arbitre bu ne ne ko yem fa mu yem fa loolu gëm nga man loolu gëm moo caatu xale la te lamb bu amee foog ñu wax foog ñu waxante quoi xasante xam nga mais l'essentiel daal moom liggéey na loo xamante ne incha allah su ñëwee dina bëree na woon si woon rek yàlla yàlla may ko ndam ñu ñëpp loolu loolu moo ñu fi indi tey te liggéey na lu ko may ndam te incha allah dina am ndam bu soobee jaajëf jaajëf ñaanal caat ndam du ko ñaanu baax parce que lii soo ñu ko xoolee ngeen war a xam ne yaraax ñun ñëpp benn lan benn bopp la ay frère lan lamb boolewuñu ñun deret deret moo ñu yëkkati ñun ñëpp ay mag ak rakk lan ay frère lan ay doomu tante doomu yaay ñun ñëpp ay mbokk lan du sport moo ñu boole quoi ay dëkkandoo lan kon lépp rafet na kon ñëpp nañ xool si ñun sport boolewul bopp te xaajale exemple ci football bii ñu jugee xool ñëpp juboo xam nga xoola yaraax tey ñëpp doon benn mbër yëpp génnandoo champion yëpp a ngi fi nii ñi képp kuy tax ngemb rek yaa ngi fi kon waaw di leen di ngi ñaan lépp xool yi ni mu doonee benn dimanche ñu demee noonu stade yàlla may ñu ndam si barke alxuraanu kari tey ñu ñëw ci open press caatu doon benn say mu jëm bis lan nga koy yebee waaw parce que ñoo bokk ndey ñoo bokk baay te ñu ñëpp xamante bokk mbapat def lépp defandoo lépp caat borom baax la bu ñu xewlee day bàyyi léppam ñëw kon yoon la mu jaa mu xewle ñu ñëw rawatina ñu ñëw fekk sunu grand muy Moussa muy sunu lépp muy sunu idole di sunu lépp muy Moussa Ndoye di ko ñaanal jàmm caat dañ koy ñaanal moom ndam parce que loolu dong moo ñu jik te dafa yor caabi bi fu mu toll nii mooy dafay ubbi ñun ñu ñëw dugg di ngeen dugg waaw du désert daal la am waaw ñëw naa <laughs> ma sant yàlla sant man awaa gu yaar transport di sant ñoom Modou Fall ñoom daam jub rek njaay rek Dalifort fi laa juddoo fa laa yaroo fa laa màggee nga juddoo Dalifort waaw diggante Dalifort ak ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi lu ko jaali waali waali daal màgg daal kasanka neex la jàppoo en trois yaa am rek kii kàddu gi yaa am rek xam dafa yàgg xam dafa yàgg ak mbaxal ak koy montagne ci ak jàppoo ak mbaxal ak Dalifort ak ak seen ak seen Elisabeth ñoo bokk ndey ak kon tey ñoom bu nekk fi ay champion Thiat Irakh ak ñoom Moussa Ndoye am fi combat ñu woo ma seen épreuve parce que damay ñëw tey daa mel ni tey booy Dalifort ak booy Kaaw mi taxaw nee ma yaaw damaa def dama war a def épreuve bi Dalifort kon ku ma fa jiitul ku ma fa ne masa yaa ngi man nag Pikine laa nekk mais tey bu Dalifort xewle damay teew bu Yaraax xewle damay teew mais à part Dalifort ak Yaraax gisuma ma koy teg sama tool. kon bu parcelle xewle ma wàññi. comme parcelle bi soxna est-ce que mosuma gis parcelle. déedéet waaw man Pikine laa bokk. ma wàññi. waaw wàññi waatal. ma wàññi nga Pikine nga may gis. Dalifort ak Yaraax jeex na. wa salaam dëkk. Yaraax ak Dalifort ay dëkkandoo yàggal ñu. waaw waaw bu aaraw ndeysaan ndeysaan fa la mbir mi takkee buur are yaaw jaal fa la mbir mi takkee mais sant benn ne dama bëgg dina wax booy yiraax di wax booy day foor yi data booy ma amoon yaram man maay seen tëdd fil waaw bu nga mais comme aw ma yaram dañuy macha allah sama rek ñoom la am ak ñoom booy day foor ak ñoom booy taakuré rek ku am combat boo ma gisee boo ma gisul ñaanu ma yàlla lu nga am ndam ndax man ñoom laa am ndax démb mu demee kon nag sant yàlla quoi wa salaam barke sëñ Bamba. Talfa nee naa bëgg a bëri ak yow. baax na. bari ci loo ne. waaw ñu ngi lay bëggee bàyyi ji ñu ngi sant bu baax ñu ngi sant baax a baax alhamdulilah. tey sa diggante ak caatu yaram. muy mu mu am bu rëy diggante ma Bulldozer ñëpp xam ne ndaanaan la. ñu ne combat tay mu di yàlla ci moom lan nga koy wax. waaw côté sant yàlla bu baax a baax parce que caatu yaram ku ko xam ne xam ne ndaanaan la Bulldozer ndaanaan la mais caatu Caatu Yaraax da koo supérieur ci bépp côté te incha allah bul dimanche dinañ xam ni Caatu Yaraax da koo ci bépp côté. incha allah ci kàttanu yàlla moo la ndaanaan la champion la nangul nañ ko ko. mais ñun Caatu Yaraax dañ koo gëm te wóolu ko te xam nañ ni incha allah luñ ko yabee bu bis baa dina ko confirmer bu neexee yàlla. yow ci lan nga ne. waaw ñun ñoo suñu entraînement rek comme ni ñu ko daan defee d'habitude di waajal di compétir comme ni mu waree quoi. sama rakk la a nekk si lamb ñu nee na am leen di nuyu. di leen jaajëfal fu waay mën a nekk ci réew mi ak bitim réew. di leen fàttali li ñu fi indi muy open press caatu yaraax. caatu yaraax nekk xale boo xamante ni ndaanaan la ci lamb kenn du ko présenté ci lamb mu jëm ci bis bu rëy muy le 27. le 27 bi ñu jëm mu laal xale boo xamante ni ndaanaan la ci làmm muy Bulldozer caatu yaraax ne Bulldozer moo ma laaj Bulldozer na ko soxlawu ma laa laaj bis nag boo gis bis lay fay mbaa muy lebal bés yegg si nañ ci bis bi caatu yaraax a ngi ni def na open press Bulldozer def na open press wax na dégg nga lépp lu mu wax ñu ngi lay bàyyi nga nuyu mbokk internet yi su ko defee nga jublu ci waxtaan bi ay ca ñu dem caat ñu ngi lay nuyu waaw auzu billahi mina sheytaani rajim ginnaaw bañ sante yàlla di julli ci yonent bi ñu ngi sant suñu wajur euh, maanaam di sant ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci open press bi di dalal aussi si internet yi nga xam ne ñoo ma fekk fi yëpp di leen wax masa coono asalaamaaleykum wa rahmatulah maaleykum salaam wa caat gis nga bërki démb Bulldozer open press bi mu def mu wax lu bare bare bare ci yow gëm na ni bu arbitre ne prix fépp foo nekk dina la fa fekk nee na say supporter nga mën a nax mais moom mënoo koo nax bu arbitre ne prix bu ne la yemal fii nga yem foofu doo foofu de xanaa. day sóob. maanaam dafa bëgg ma tontu ko quoi. ah da nga koy tontu. waaw boo ma dalee tontu ba léegi nag dafa yàgg. yaakaar naa ñi fi taxaw ñëpp jël nañ interview. damaa tontu ba sonn. laa koy tontu ni ma koy tontoo mooy du ma ko daan ko rek. amul leneen. bulldozer nee na mbër mu nekk yaraax pareegul am mbër mu ko mën a duma. maanaam mbër bu nekk yaraax. nee na yaraax amaguñu mbër bu ko mën a duma. non mi ngi soog a dugg yaraax. Eh? nee na amaguñu mbër mu ko mën a duma. ci kàttanu suñu borom dootul dugg yaraax. fii lay yem ci yaraax fii. kenn mësu koo duma si lamb. man maa koy duma dama koy duma daan loolu mënu koo bañ dama koy duma daan ko maa ngi nekk xale. Double Less dama koy duma daan ko. lépp man maa ko góob lu góor am lu nekk man maa ko góob. lépp man maa ko daax. maa ko ëpp ma mobilisation moom yéen xam ngeen li Thiatou Yarakh di dugal ay sat. daf ma wax wax bu am solo. mu ne ma bàyyi jiili ma ne ko naam mu ne ma damaa dugg yaraax. te fas yéene ma génnaat yaraax nee dalay njëkkee mos la laalaat keneen yaraax mais bëtam du ci yow la ko teg ci yaraax. waaw moom gaal gi mu fi saroon dig na bu yàgg. te maa ko digal <laughs> laalee nga digal gaal diggoo ma le 27. man dama doon lambandu tey laay soog a lamb le 27 ci kàttanu suñuy borom incha allahu rabi le 27 ma wane sama bopp. Buldozer moom du ma ko tontu parce que naa ko 500000 fois. ko léegi damaa gis mbëri ku daan damm 16. ku ñu daan mu damm siège mu ne say supporters ñoo fas yéene damm siège u arène nationale. moom ay supporters am dañoo yaru. man de benn man man man mosuñu maa ci lamb kenn mosul wax sumay supporters ne moo damm man maanaam CNG mosuma dagg ci xaalis. yow man ñu no à l'avion la laay àndal maanaam fii Robert Thiatou Yarakh yi boo leen séentew fii nga xool gesu xam na fii ay caporo ñoo fi taxaw waaw. duñ def violence ñun duñ damm siège duñ damm siège mënoon a xaar cinq dañoo namb laamu ju neex yéen chaque jour daan ngeen ne gisu leen filmé wu leen. dama koy samp ci kàttanu suñu borom. ma laajul la lii bëri la laaj. damay taxaw bëri moom duma ko. ba mi-temps. te laa yóbbu mi ko bëri la ko mu xoox ma daan ko am mi moom du la xaar. ngay indi bu arbitre ne prix moom day indi est-ce que bu indee mun nga koo dégg est que bu indee mun ngaa dégg Buldozer maanaam bu indee nee na moom du la xaar day indi bu arbitre ne prix mu ngi sa kaw est-ce que bu doxee sa kaw mun nga koo dégg waaw loolu ay naxee mbaay rek bu dee indi moom ci man ko dàq man lañ ko xamee ndax euh, stratégie lamb man dama koo xam mbër li ngay teg pour bu ëllëgee nga mën a nax sama mbër xam naa lépp nu mu demee Buldozer du bëri du xeex billaahi day raw génn géew gi Bulldozer bu taxawee làmb ji du yàgg mais day daw. borom 4 secondes moom dafa am doole ta moom gëm na ni moo la doole. li mu bëri bu bëree ma yóbbu ko Alizé de. moom Bulldozer. na yàlla. moom gin bu yow da koo conseillé Alizé la ko yóbbu. bokkuñu man caatu yaraax nga waxal Bulldozer dama koy duma daan ko xaar man de xanaa déggoo ma yow. kenn mënu ko ko. kenn mënu ko duma ci làmb. waaw le 27 yaa ngi bokkul rek. Hmm. waaw moom li mu foog moo koy nax. lan la li ma waxoon laa waxaat. loo waxoon. ne du ma romb loo ci géej laska su si kanam laay dabee. te bu fa gaalam ñëwee mu dig. dégg nga. gaalam bu fa ñëwee moom mënu faa àgg. nee naa la ndaw bu daar ndaw koy buddi. loolu te su ma ko jàppee moom dama koy buddi par force. ndaw bu daan ndaw koy buddi ñoo xam. non dañ ñu ko war wax ñu dul lébu xam ko. su ma ndaw bu daar ndaw waxuy buddi su ma leen ko tekkalee léegi da ngeen xam li may def ci stade dama bëgg rendez ma man maa leen ko jox day am ci kàttanu yàlla maa tàkk plateau ne leen nii ndaw bu daar ndaw waxuy buddi di signifié incha allah rabbi loolu jour ba nga koy wax jour ba laay wax lu mu doon fi ma ko teg fenn kese la gëm sama bopp nekk ndaw di liggéey ci bëre ci lépp gëm sama bopp kese ke li ci des moom day ñaan yàlla parce que xam rek beneen côté bi ñuy wax ñun ñëpp ci yàlla la suñu boobu dañuy wékku yàlla noppi na mais ngëm-ngëm ci kàttanu suñu borom damay ñëw am ndam. non man du ma mbër buy tudd ay xarfa foofu ci làmb man du ma dëkk kenn ci ay xarfa foofu yàlla rek moom moom ñaan ci kàttanu yàlla man li ma liggéey laa fas yéenee wane bokk ci kàttanu yàlla parce que làmb boo ci yaakaaree missi rek sa mbër des mbër da am talent liggéey ñëw taxaw wane sa bopp. waaw. ayca Bem. looy wax ci non violence. waaw non à la violence maa ngi koy woo ci képp gi nga xam ne mi ngi yeewoo ci axlu lamb laa wax de waxuma yara kese de parce que lamb ji ñun la concerné buñ ko yàqee ñun ñooy pertaat. kon tey li may wax rek mooy amateurs yi supporters yi ñi ne tribune amateur ñëpp ak VIP ñëpp nañu wootee non à la violence. parce ngi bàyyi seen euh, supporter xel di waxtaan ñoom si loolu parce que dañu gis lamb violence dafa bëri. xam la waral loolu bu jiitee violence rek. supporter day indi violence. mais mbër bu ñëwee no à la violence. supporter bu ñëwee day dal ànd ak tey. Ah, wax violence moo tax supporter di di def. man su may supporter dañ maa xam xam nañu ne du ma leen yàggal ci àll. damay ñëw lijjanti li may lijjanti dem sama yoon. du ma fa nekk di tamu seize. non non. bis bi da ko koo bokkal say yeneen nawle mbër. ndax ku ci nekk xam na ne Ada fas ak Jokal da ciy bëre. Bou site ak Laurent Ndiago da ciy bëre. ñeneen grand combat bi dox ci diggante yow ak Bulldozer. ci wàllu mobilisation lan lañ mën a xaar ci caatu yaraax mobiliser ko indi ko stade ndax bis bi passé gis nañ li nga bàyyi maanaam siège mën nga ko luwee mais doomu aadama mën na ko luwee li may mën a xamal mooy man du ma digle stade bu vide du ma digle stade bu fees mais ci kàttanu yàlla su ma ñëwee danaa ñëw ak doole. te ñëpp dinañ xam ne waa Yaraax ñëw ne. dinañ man dëggu ma Yaraax kese Sénégal ñëpp lañ faral. ñëpp ma lañ faral ci bis bi amu fa dara jour yi lu mu def mu yaaxu parce que Malika bi mu dëgg moom maa ko fa bële moom jero sama yaax mënu ko génne benn kaar moom man su ma xool combat bulldozer mu dugal ñaari kaar ci lamb déedéet waay déedéet ay lan nga wax sa mbokku mbëri fi ñëw gis nañ fi Moussa Moussa bi laay wax cent pour cent bi cent pour cent Yaraax Daaru Salaam Dalifor gis naa leen bu baax ma ngi leen di sant bu baax a baax aussi tam ñoom Kaw Gourdin ak élément yi nga xam ne ñoo nekk Dalifor yëpp ñoom Thiatou Dalifor ñoom Oligens ñoom ñëpp écurie Yaraax aussi tamit naa leen ñoom Moussa ak ñi mu jiite ñëpp naa leen ñoom Wës jàmbaar su ma cité damay juum. écurie Assane bu Yaraax écurie Yaraax képp bàyyiwuma kenn ñëpp maa ngi leen gis ci euh, aussi yaa xam Bawol aussi tamit yaaw jaal sama doomu nday aussi tamit gis naa ko fi maa ngi koy bégee a gërëm bu baax. waaw li rek mooy xam nga li am naan la répétition est pédagogique yéen chaque jour rek benn question bi ngeen may posé. li ma bëgg mooy jour bi ma ñëw corriger ko mu jeex. mu ngi lay xool wax ko lan nga bëgg ci jour bi. cest moom. moom mun naa wax sax le jour bi man nii laay bëree ci nii laa lay daanee. wax ko ko. nañ bàyyi nee na nee na bëgg xeex xeex man maa ko njëkk a wax. yow yaa ko njëkk a wax man maa ko bëgg xeex xeex bañ xeex xeex. ngir yàlla bu mu rusul amateur yi nañoo dëggal foofu su juumee nag bay jéem a xeex ak caatu yaraax humilier boppam ca làmb ji jërëjëf wooteel waaw ñi may woo moom bëriwul ah yaakaar naa mu ngi nii kon euh, bu ko defee maanaam ñi ngi gërëm njiitu dëkk bi aussi tam di ko woo Babacar Mbengue ñu ngi lay woo suñu combat ñu ngi lay woo suñu combat nga ñëw jàppale ñu Mame Boye Kane gis nañ jàppale ñu ngi woo Matar euh, Matar Dia aussi suñu combat nga ñëw jàppale ñu bu baax euh, Zal Diop ñu ngi lay woo nga ñëw jàppale ñu suñu tata ñu ngi woo Ismaël Diallo ñu ñu Serigne jur gis naa jàppale bi macha allah gërëm naa la bu baax a baax ah. Euh, Adama Traoré gis naa jàppale bi sama supporters yi nga xam ne ñoo nekk prison waa 100 mètres waa 100 mètres nga xam ne ñu nekk Sénégal yëpp fépp dañu may bëggee démb dañ maa woo ba guddi jot chaque jour. caatu yaraax ci yow wax ñi fa nekk ñëpp yàlla ñu leen libéré suñu frère Kaw Cissé bébé Diène yàlla ñu ko yàlla ñu leen libéré ci ni mu a gaawee kon ñu continuer gërëm bi rek waaw euh, Ablaye Fall gis nañ sa jàppale le capitaine Thierno Thiam ñu ngi lay woo suñu combat coach yu écrit aussi tam maa ngi leen di gërëm ku ci mel ne coach Aliou Sarr dafa déplacé wu ñëw moom aussi tamit bokk ak ñun liggéey bi ba mu jeex tàkk ak coach ñoom Càmbal ñoom ñaabali euh, ñoom euh, Mbassa ñoom ñëpp ak pe suñu per Pène Ndiaga fàtte ñu ko mbëru écrit askan bu Yonax gis naa seen liggéey maa leen sant bu baax ok suñu yaay Koumbalay Fall ñu ngi lay gërëm bu baax a baax les jeunes pêcheurs bàyyi ñu kenn mool yi baa yi ñu kenn Cheikh Ndom euh, mafia Ndiaye Lo bi ah bàyyi ma leen suñu ñoom yaay Rama Baar ak maire yi leen jiite yëpp ñu leen di gërëm bu baax ah. voilà euh, famille Ngomeen seen Sène ñu ngi lay wax suñu combat Pape Fall président yeeg euh, ak Wiz Dib sama ñaari rappeurs yi seen liggéey ak ak Jazz maa ngi koy sant bu baax moom tamit rappeur la non non ñett moo des non non Père Assane Fall Babacar Ndiaye bu hamburger nga xam na chaque jour moo ma jox hamburger euh, sama maire koñ yi écrit askan bu yara waa gaal gi waa Fladéo Dalifort Bel Air Darou Salam Montagne si zone 7A zone 7C hmm. Ndeye Fatou Wade ñu ngi koy sant moom tamit hmm. Xaarim Ndiaye Maris ñu ngi lay woo suñu combat Xaarim Ndiaye ñu ngi lay woo suñu combat coach bu naama fan si club euh, Thiatou Yaraax taxi bagage yi tamit fàttewu ma leen taxi bagage yi même daw rabini dafa euh, cabo jàpp na sama combat vraiment suma suma grand yow mi nekk Sénégal wala nga nekk Afrique te bëgga seetaan gala bu mag bi war a am le 27 février fallu Ndiaye organisé ko mu war a dox ci diggante Ada Fass Jokkel Laurent bu Bou Siteu Bulldozer Thiatou Yarakh ak yeneen juróom-ñaari combat yu war a am ca bés mën ngaa jënd sa code ak sa Orange Money da ngay def dièse 144 dièse 5 étoile 346 360 étoile étoile 1800 dièse nga daal di bës touche appel daal di dugal nag sa code secret di nga jot benn SMS bu la yónnee sa code ma lay yëgal ni code bi Sénégal dong la yem ak Afrique bu fekkee da nga nekk ci yeneen réew yu bokkul ci biir Afrique maanaam ci Europe bi ak li ko wër yow carte bancaire rek nga mën a utiliser wala PayPal dangay def 3W point seen affiche point com nga daal di bës achat ou connexion par carte bancaire nga daal di topp nag tegtal yi ñu lay wan.